di sant yàlla subhanahu wa bi nga xamante ni may nañu kàttan ak ngëm ba ñu yegsi ci bisu tey bi ndax yoon wi sore na te xam naa ne dañ ciy doog a xuus rek yeggaguñ ci fenn li ko waral mooy li ñu boole li ñu boole du lenn lu dul suñu doom yi nga xamante ne dañ leen naa téye ci kaso bi injustement ndax mbiru politique rek tax mu jur ay métit yoo xamante ni métit yu jéggi dayo la ba xolu way jur yëpp jóg papa yaay soxna yi boroom kër yi ndax am na góor ñu jàpp seeni soxna waccee leen seeni njaboot euh, mu doon métit bu tar mu yëngal ñëpp nag ba tax ñuy jóg ne dañuy taxaw kuréelu kuréel gi nag am yoon wu mu jaar euh, ndaxit bi yàlla dogalee lool ci suñu njaboot parti bi ñu naan passif tax ñu teg leen nattu bi bàyyiwuñ leen woon benn yoon am ay plateforme yoo xamante ni dañ taxawoon temm ngir fexe ba suñu doom yi ñu bàyyi leen kon ñoom ci seen biir liggéey boobu la sosee lii jàpp ci liggéey bi a ah, ba yàlla taxawal ko tey jii ñu dajee woon fi comme ni ko honorable waxee léegi nii euh, Mbène waxee léegi nii du moins ah yàlla ci mbaaxam ñu feddali seen kóolute ci sama jëmm ju xeebu ji kon ma leen ciy remercier bu baax a baax a baax di ko dolle sant yàlla bu baax xam ne man baaxuma mënuma ñoom ñi ñoo mën ñoom ñii ñoo baax may ñaan yàlla doyloo bi ma doyloo yàlla bu yàlla tas seen yaakaar ci man dinaa ëlbatiku gën a doonaat seen Baay Faal ànd ko ak ñoom nag ndax boobu ba léegi ni dañoo làng ànd ànd bu sincère kon am naa yaakaar ak yàqin ne boobu façon àndin bi ñu ànd dara du ci jóg daa tolloog ne rek loo gis lu ne foog ñu organiser ko rek bu ëllëgee nga mën a taxaw boo yëkkatee sa kàddu ñu ne am nga légitimité wax mais bu doonul woon loolu ñu soxlawuñu bureau bi ñu tegee taxawalee bureau bi saa fonte def li ñu war a def yëpp ci journée tey bii ñu ngi xamal askanu Sénégal ne leen ñu ngi woo képp koo xamante ni mën nga cee wax mbaa nga yëkkati ci ay kàddu mbaa nga def ci ay jéego ba njaboot gi ci biir prison bi ñu génn fa ndax du seen place ñu ngi la ciy woo suñu doom yi duñu ay woyu duñu ay bandi duma noppi di ko wax bu guddi jotee ñi leen laq xañ leen seen i njaboot ak seen soxna ak seen i wayjur ñoom ñu ngi des ak seen njaboot kon loolu nañ ko bàyyi xel ci xam ne lu metti la waaye yàlla moo ñu teg nattu bi dañ koy nangu rawatina bi nga xamante ni doom yooyu ñu ngi koy dund ak ngor gu mat sëkk te ñi nga xamante ni ñoom la leen yàlla boole loon ñuy def dindi démb ak barki démb ba li tegu ci seen kaw bàyyi wuñ leen benn yoon bàyyi wuñ leen benn yoon saa su nekk rek seen i ñooñu ngi taxaw ci seen wet seen ñoo ngi taxaw ci seen i euh, wetu njaboot kon loolu dañ koy sante Maulana subhanahu wa taala ci biir loolu nag ñun dinañu am programme yoo xamante ni incha allah dinañ ko dérouler. woote wuñu xuloo woote wuñu xeex waaye nag am fulla ak fayda ju mat sëkk joo xamante ni dinañ taxaw ba suñu doom yi gannaaw ñoom dañoo lay wax tuumaa leen ba dugal leen dinañu wax ak ñoom jàkkaarloog ñoom ba keroog ba ñuy génne suñuy doom woyu yeeg bandi yeeg terroriste yi dañ leen seeti feneen fii que ñoom Assane Dramé la ku ne jàkk baayam ne jàkk ay mbokkam nga xam ne fii terroriste juddoowu fii ñëpp ci daara alxuraan yi la ñu jóge ñii ay cadre lañu ñii ay ouvrier lañu yu man seen bopp yor seen i chantier seen i njaboot teral seen i wayjur kon li lay war a suuli li ñuy tuumaal xale yi nañ xam ne seeni i wayjur bis ni kay taxaw nañ temb di leen wax neen tuuma boobu dootuñ ko bàyyi mu law lépp loo xamante ni nag négociation ak médiation laaj na ko incha rab rabbi ñun suñu action ci loolu lañ koy porté di dellu di ma saw soxna soo xamante ni ñun suñu référence la tey ndax mënuñoo wax lii ñuy wax ci gune yi te waxuñu gune yi lu leen indi fii seen njiit di Ousmane Sonko usmaan Sonko di doomu réew mii mu am wayjur 2021 ba léegi nii soxna si di euh, Yaa Khady Ngom toog ca fa mu toog di seetaan ci télé di dégg ci média yi national international ñuy faagaagal doomam ji di ko def lu ne di ko di ko bunduxataal njabootam di gis doomam yi di gis ay mbokkam di gis soxna si sëqatul yënguwul kon ñun soxna si ñun ñi ñu jàpp suñu doom yi booleeg doomam jii na xam ne bis ni ki tey ñun def nañ ko suñu présidente d'honneur association bi fu mu nekk dinañ ko fa fekk ñu ngi koy massaw di ko xamal ne ko Sénégal ñëpp a ngi ci ginnaawam ñëpp a ngi ci wetam ci kattanu borom bi lii du ci wéet benn yoon wéetu ci woon nag waaye dañ koy biral xamal ko ne ko du ci wéet benn yoon ndax xam nañ ne jullit àqan la fu mu toll mu ngi wéttalikoo boromam ndax ñun ñi suñu borom la ñuy wéttalikoo bu ñu wéetee wéttalikoo yàlla bu ñu wéttalikoo wéttalikoo suñu borom kon gannaaw yàlla rek kenn manul ñuy lancer un appel au juge di leen wax ne leen atte boo gis danañ ko attewaat nañu bàyyi seen xel tey am na ay juge yoo xamante ne àndoon nañoo ak ñoom bi ay wii di door ba léegi nii tey ñu làqu nañ wane nañ ginnaaw ku ci def lu jub nag sa digganteeg sa borom yaa xam ku ci defoon lu jubadi sa digganteeg sa borom yow yaa xam waaye tey ji fa nga nekk yaa ngi laloo sa njëgënaay Macky Sall fekku la fa procureur fekku la fa ministre fekku la fa kenn fekku la fa lu dul saw jëf kon ñi nga xamante ni ñoom dëddu nañu bàyyi leen fii ñu yor lenge yi li lay war a suuli nañu sóor seen ëllëg alalu àdduna bu mu jaral kenn dara ñun du ñu prôné injustice jamais de la vie ndax man ku ma ne jàkk xam ne duma ma dox ci jubadi am naa fullaam ak faydaam ba ku jubadi du ma ànd ak yow kon ñoom nag ñu bàyyi seen xel ci loolu te xam ne lu fi waaye atte di nga ko attewaat ñuy ñaan yàlla yal yàlla defal Sénégal jàmm